asalaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci Ndindy Actu TV ñi ngi ñëwaat ak yéen ci seen beneen chronique tey nag dañu leen indil portrait kilifa gu mag gu bokk ci yoonu murit doon sëtub sëriñ Touba doon itam koo xam ni doonul n'importe ki ci biir kër sëriñ Touba ndax sët la waaye sët la ci biir sët yi ñi ngi koy woowee Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Khader ñenn ñi di ko woowee Serigne bas Abdou Khader am ñu koy woowe affectionnellement Cheikh bas alors. Cheikh Bass Abdou Khadre moomu moom la ñu bëgg indi tey portrait wax leen tuuti ci jaar-jaaram donte mënuñu peeg lépp waaye liñ ci jot a gëstu rek ba xam ko ci moom ak itam niñ ko yàgg toppee ci yoonu murit gis ko mu nekk nit ku dynamique doon nit ku baax doon nit ku sell moom lañu fas yéene jukki incha allah li ñu jot a am ci information ci moom fas yéen leen ko jébbalal jébbal tey ci ndindi Actu TV ci suñu chronique maa nag Malick Fadal Fall ñu fas yéene leen dégtal kon loolu nga xam ne moom lañ jëlee ci sëriñ Bassirou Abdou Khader Mbacké sëriñ Bass Abdou Khader Mbacké moo di sëriñ Abdou Khader Mbacké sëriñ Abdou Khader ku ne xam na ko doomi sëriñ Touba la joo xam ne moo doonoon ilimaani Touba luy tolloog ñaar fukki at lu topp doon koo xam ni ku exceptionnel la ci yoonu murit Cheikh Abdoul Khader Mbacke doon na fi xalifa Serigne Touba laata muy wuy ji boromam Cheikh Bachir Abdoul Khader mi ngi juddu ci atum 1976 la gane àddina 1976 ak léegi nag bu ñu koy nat ci ay at lañu naan kon du mag ndaw la waaye ci at moomu daal lañu jàpp ni ci la gane àddina sëriñ Bass Abdou Khader waajuram wu jigéen mi ngi tudd Soxna Daba bu Bousso kon Baye Mbacke yaay bu Bousso kon moom dafa bokk Mbacke bokk Bousso be nit la it koo xam ne bi mu gimmee rek li ñuy defal bépp Mbacke Mbacke mbaa sax koo xam ne rek da ngaa cosaanoo ci dëkkub Touba defal nañ ko ko mu di dugal nañ ko. mu dem jàngi alquranul karim ndax kër sëñ tubaa képp ku fa gimmee rek li ñu lay njëkk defal mooy ñu jàngal alquranul karim fa mu ko njëkk defee nag moo di daara sëriñ sëriñ bu Mbacké sëriñ bu Mbacké doomi sëriñ Touba la joo xam ne ku ne xam na ko ci sunna ak shariatu muhammadiya doon koo xam ni doom la ci cheikhul xadim yor tamit daara joo xam ni ñi nga xam ni ay doomi soxna lañu te nekk Touba ñu bari ci ñoom jaar nañu ci daaraam joojule kon foofu la Cheikh bas njëkk a jàngee alquranul karim ba mokkal ko ci ay at yu néew macha allah bi mu amee maanaam at yu néew ci la mokkal alquranul karim ñi mu nekkaloon ci daara ji wax nañu ni nit la ku bari kersa ku bari kerse la woon bi mu doonee ndaw kon loolu du ñu bett ci moom biñ ko gis boo ko gisee ni mu calmé nii dal nga xam ne nit ku bari kerse la waaye nee nañu it ku généreux la woon maanaam lu mu yor da koy joxe da def sax lu mu am rek bu ñëwee day seet ñi nga xam ne ñoom la nekkandool ci daara ji jox leen ay mbir di leen ko séddale moo xam ay koppar la moo xam lu ñuy jëfandikoo la doonoon na it koo xam ni ku ragaloon cat la tous les mbàkke mbàkke d'ailleurs waaye cat nag dafa doon loo xam ni lu mat a ragal la ndax dégg ngeen ci tuba Tuuba euh, ci xasid boobu ci sindi di mu naan wakun muizan lana min charri zi xasadin maa charri famin wa charri l ayni yallaahu wa charri sixrin wa charri l xalqi insihimu moo tax bi mu mokkale alxuraan ci ak teel am na ñu mu jot a déey ne leen mokkal naa waaye bu ko kenn yëg ndax demee bañ ñu catuma kon loolu xam naa ni lu xoromu la loo xam ni macha allah euh, sëriñ bi am na ñoo xam ne seede nañu lool ci moom ci ñi nga xam ni ñoo nekk ndoo nag moom ci daara ji bi mu jógee ci daara yi sëriñ bu Mbacke dem na ci ku ñuy wax sëriñ Khalil Mbacke sëriñ Khalil Mbacke ngir gën a yaatal ab njàngam gën a xóotal am njàngam ndax xam ngeen ni euh, boo jàngee alxuraanul karim ba mokkal ko dafa am nag leneen loo xam ni da koy laaj pour nga xam ko ci sa wàllu diine ak li nga xam ne moom moo di science islamique yeneen téere yooyu nag nee nañ bi mu jógee rek ci daari Serigne Chouaïbou Mbacké dem na ci ki nga xam ni moom moo di Serigne Khalil Mbacké euh, ngir gën a yaatal foofu am njàngam maanaam lépp loo xam ne rek jëm na ci science islamique nee na it euh, fréquenté na ki nga xam moom moo di Abdou Serigne Abdoul Ahad Diakhaté dem na fa foofu itam euh, gën fa yaatal am njàngam foofa nag euh, nekkoon na fa ak ay mbokki daaraam yoo xam ni def nañu ay seeda yu rafet rafet rafet ci moom macha allah bi mu jàngee nag ba noppi ci am njàngam ba lépp loo xam ni doomi soxna mbaa doomi kilifa war na koo xam ci wàllu diineem ak ci wàllu àddinaam samp na li nga xam ni moom moo di kër samp kër nag moo di maanaam nga jël soxna daal di taxawal sa kërug bopp comme ñoom niñ koy teel defee macha allah ci ak ndaw lañ koy defee loola it nee nañ bi mu jógee ci daara ji ba jàng ba noppi dem na samp këram nekk fa am na it ay daara yoo xam ne samp na ko bi mu jógee nag ci daara jooju nga xam ne moom moo di daara Serigne Khalil dem na ci daara yi ku ñuy wax Serigne Abdou Lahad Jaxate foofu nag nee nañu bind fa ñaari kaamil ñaari kaamil yooyu mu bind nag euh, am na ay mbokki daaraam yoo xam ne seede nañu ni wax dëgg yàlla koo xam ne la ku rafet mbind la ku rafet tam am njàng la bi mu jógee foofu nag dem na ubbi daaray boppam loolu mi ngi ko def ci atum 2002 daara ji mi ngi ko ubbi fu ñuy wax bi mu paree am njàngam foofu ba bind ñaari kaamil Euh, ci sëriñ Abdou Lahad Jaxate moomu le nee nañu samp na daaray boppam joo xam ni mi ngi ko samp ci atum 2002 ci dëkk bu ñuy wax Muure loolu ci atum 2002 la woon xam nga ni nag ab sëriñ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo sant Mbàkke li ëpp ci ñoom dañuy faral di bëgg di tukki maanaam di dem bitim réew ngir mën a découvrir yeneen mbir yi nga xam ne ñoo am bitim réew am na ñoo xam ne seeti taalibe yi de temps en temps moo leen fa yóbbu am na ñoo xam ne dem liggéeyi comme ñëpp moo leen fa yóbbu am na ñoo xam ne it dem ngir saafonte rek ak ñi nga xam ne ñoo fa nekk ngir gën leen a yokk euh, seenu taalibe gën leen a renforcer moom Serigne Bassirou Abdou Khader nee na ñu premier voyage am mi ngi ko def ci 1997 bi mu defee voyage am boobu 1997. am na ñuy nettali ne moom nit la koo xam ne ku amoon ak rafetoo la ci ñi nga xam ne moom moo di mbokk taalibee yi ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Touba ndax jukkoom ju rafet jukkoom ju rafet jooju nag permettre na ko mu yéeg lu gaaw a gaaw ci li nga xam ni moom moo di ak kilifteef ba ñi nga xam ne sax ay way juróom lañu ñi nekk ay magam gën koo wekk ci yoonu Serigne Touba ak ci biir biiri bokkam looloo waral ci atum 2008 Serigne Baara Falilu Mbàkke bi mu doonee xalif général de Mourides jël na ko def ko li nga xam ni moom moo di porte parole bu yoonu Mouride porte parole nag nekkul woon lu ñu miin ci yoonu Mouride lool waaye euh, ki nga xam ne moom moo di Serigne Baara Falilu Mbàkke bi mu doonee xalif moom dafa ñëw jël porte parole gi jox ko Cheikh Bachir Abdou Khader ci jamono yooyu nag ñi nga xam ne ñoo di ay taskatu xibaar nekk ci biir réew mi ak itam rek ñoo xam ne ay observateur lañu dañu ko jàppee woon benn duwe maanaam koo xam ni dafa doon ndaw ba noppi am xel mu neex ndax fasaxa bi nga xam ni moo nekk ci kàllaamam buy wax doo bëgg mu noppi ndax li muy wax dafay leer te toujours lu buy wax dara da koy jële ci alquranul karim wala mu jëlee ko ci xadis yonent bi salaa salaam wala ci mbindum sëriñ Touba wala keneen ci ñi nga xam ni ñoom ñoo di ay bindikat ak nekk itam ay nit ñu baax nekk rek ci euh, àddina bi nga xam ni ràññee nañu leen ci wàllu xam-xam kon sëriñ Basirou Abdou Khader diirub li nga xam ni moom la fi euh, sëriñ Euh, Baara Falilou Mbacké nekk xalif général des Mourides moo nekk porte parole doonu toon nag loo xam ni miinoon nañ ko ci yoon wi waaye nag xalifa bu fi mës a nekk di nga am koo xam ni moo doon sa bras droit mooy sa ndeyjoor di sa càmmoñ di say di say tànk noonu itam la nekkee nekkin wu rafet ak ki nga xam ni moom moo di Serigne Baara Falilou Mbacké ndax Serigne Baara Falilou euh, Serigne Bas da koy nettali souvent ni dafa amoon benn affection ci moom ndax xam ngeen ni sëriñ Baara Falilou nekkoon na ki nga xam ni moom moo di chauffeuru sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ba ànd naag moom euh, fi nga xam moom moo di makkatal mukarram ci 1976 bi nga xam ni euh, ci la sëriñ Bas gane àddina taxawu ko ba mu def ak ajam mu àndandoog moom ba ni mu fi jógee kon kóllëre googu doxoon diggante sëriñ Baara Falilu ak ki xam ne moo di sëriñ Abdou Khader di waajuru sëriñ bas Abdou Khader kon loola la kóllëre googu la mottali ci sëñ bas moo tax sëñ bas am na lu mu nettali bis ni am na lu xawoon fële nga xam ni moom moo di njaareem mu euh, ñu ñu mu waroon ak sëriñ bi waaye moom mu xaw a tardé waaye sëñ Baara dafa dem ba génn tuubaa taxaw di ko nekk nee na taxaw na fa lu mat ay waxtu di ko xaar ndax nee na du dem mukk bàyyi sëñ Bass ginnaaw kon nekkin wu rafet woowu la nekkee woon ak sëriñ Bass Abdou Khadir diirub lu mu fii nekk ñi ngi ñaan suñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu yokk ay leeram te taar suñu si barkeem sëriñ Baara Falilu Mbàkke doonoon nag ubbeeku ci wàllu jamono moo tax sëriñ euh, mu doxale woon euh, sëriñ Bass digganteem ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa àddina sëriñ Bass Abdou Khadir nag nee nañu li muy am ak jaxasoo ak ñi nga xam ne ñooy nit yi àddina yi maanaam ñu yore nguur gi politiciens yi ak ñi nga xam sax duñu ay politiciens waaye rek doon ñoo xam ni dañuy ñëw ci moom nee nañu mbooloo mu takkoo takkoo takku dañuy ñëw ci moom ndax jikkoom mi rafet loolu nag li mu leen di fréquenter lépp taxul mu soppi dara ci aw doxinam ci wàllu taalibe ni mu fi nekkee ak ki nga xam ni moom moo di euh, Serigne Bara Falilou ba mu jóge fii bi ki nga xam ni moo di Serigne Sidi Mokhtar Mbacke ñëwee ci xilaafa gi moom itam la magam ja defoon Serigne Baara moom rek la wéyal ci Cheikh Bachir Abdou Khadra daal di koy reconduire defaat ko mu doon porte parole yoonu murit bu ngeen fàttalikoo am na ay mbir yoo xam ni xewoon na ci ay coow yu amoon ci sëñ Bas am ñoo xam dañ ko doon sànni ay kàddu ba ki nga xam ne sax moo di xalifa bi di euh, Serigne euh, Sidi Mokhtar Mbacke génnal boppam ci télévision bi wax ni bëggatul dégg kenn muy ŋàññi kenn muy muy bëggatul dégg kenn muy ŋàññi Cheikh Bass ndax Cheikh Bass mooy ay tànkam mooy ay bëtam mooy mooy mooy loxob ndeyjooram kon loolu yaakaar naa ni confiance la bu fekkee ni nag kilifa yu day noonu dañu koy wóolu moom mu doon ndaw d'abord mu yor kàddug yoonu murit ak ni yoonu murit tollu nga xam ni bu yëkkatee kàddoom rek day mel ni xalif général de murit moo wax te bu xalif général de murit waxee day mel ni xaadimu rasul moo wax radiallahu anhu wa nafaana allahu bi barakaatihi loolu nag jukko yu rafet yooyu nga xam ne am na ko tax na ba ku ñëw rek da ngay ànd ak moom ci loolu noonu itam la fi nekkee ak kooku nga xam ni moo di sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke ñu def ay seede yu rafet ci moom lépp loo xam ni sëriñ bi doon na ko bëgg ci ay wax mbaa ay jëf moom la ko doon dénk mu di ko dox Cheikh Bachir Abdou Khader ci lañu nekk ci moom waaye ba tey Cheikh Bass yàlla def mu doon koo xam ni ku dugganteeg nit yi àddina yi la comme ni ma ko junjee woon sànq waaye taxul mu soppi dara ci jukkoom ay seede nag jóge nañ ci ay nit ñu ko xam ñoo xam ni xam nañ ko bi ñu nekk bi mu nekkee ndaw wax ñooñu wax nañu ni lu ne mën nañ ko ko waxal waaye du ñu mës a teg seen bët muy def dara lu ñaaw ndax xamu ko kon nag sëriñ Bass Abdou Khadre moomu ni mu defoon ak ki nga xam ni moom moo di sëriñ Bara Falilou Mbacké def ko ak sëriñ Sidi Mokhtar Cheikh Mountakha Bachir mi nga xam ni moo fi wuutu Serigne Sidi Mokhtar Mbacké noona la wéyale kóllëre googu nga xam ne ak confiance bi nga xam ne magam yi amoon nañ ko ci Serigne bas mu jël ko moom itam daal di koy teg ci wetam mu doon continuer di doon porte parole yoonu murit mission yi gën a am solo ci yoonu murit te Serigne bi di ko santaane Cheikh Bass Abdou Khader moom moo koy taxawee gis ngeen ni saa yu bu am solo boo xam ne Cheikh Mountakha bëgg na ko def sëriñ Bassirou Abdou Khader Mbacké lay jël jox ko kàddu gi mu defal ko ko nga gis ni nag am na benn complicité ak benn proximité boo xam ne am na digganteem ak sëriñ Mountakha Mbacké léeg-léeg sax ngeen gis mu xaw koy tooñ di ko tooñ naan ko Cheikh Bass na nga def muy reetaan donc loolu mooy wane ni am na ak jaxasoo ak confiance ak complicité boo xam ne am na ci seen diggante moom ak sëriñ Serigne Mountakha Mbacké mun Mountakha nag dafa doon koo xam ne moom jaxasoog moom neex na ndax dafa doon kilifa gu lewet li muy bari bari xam-xam Serigne Sambay seede na ci moom ne réew mi ba mu daj gisul ku fi ab xam-xam mun Mountakha Mbacké waaye ak woyefam ak simplicité tax na. ba mu yëkkati sax kàddu ma kàllaam ak arab di ko wax jafe na ci moom te euh, nee nañu bokk na ci ñi ëpp xam-xam ci réew mi kooku moom moo di xalif général des mourides mi nga xam ni moo jëlati sañ bas def ko confiance kon reconduire ko euh, ba fii may wax ak yéen nag sëriñ Bass Abdou Khadre moo yor lépp loo xam ni jëm na ci organisation màggalu Touba xam ngeen ni màggalu Touba mooy événement bi gën a mag ci yoonu murit ndax Serigne Touba moo ko santaane woon Serigne fàllu Mbacké radiyallahu anhu woote woon ko Touba booba ba léegi ba mu ko wootee ci Touba Mbacké euh, xam ngeen ni euh, taalibe yi ak mbokki jullit ñi dañuy jógee fépp ci àddina bi di dem Touba Mbacké mu doon événement religieux bu gën a mag ci yoonu murit loolu organisation bépp sëriñ Bass Abdou Khadir la ñu jël teg ko ci loxoom ak nga xam ne moom moo di euh, sëriñ Abdou Lahad Gaynde Fatma yore wàllu communication maanaam lépp loo xam ni dina war a dox ci diggante président la république ak sëriñ euh, Mountakha Mbacké euh, sëriñ bi digganteem ak kilifa yooyu Cheikh Bass lay doxal ci seen diggante kon nag jikkoom ju rafet ak taxawaayam bu rafet ak xam-xamam ndax itam dafa am mbir yoo xam ni boo ko bëggee taxawee faaw tamit sab xam-xam mate ko faaw sa sag mën a euh, exprimer wu ci kàddu gu leer maanaam nga am fasaaxa am éloquence ngir nga mën di wax ak nit ñi ñuy dégg li ngay wax moo tax sëñ Bas foo ko gisee da ngay gis ni jëmm ji day gën di euh, maanaam jëmm ji day gën di tuuti ndax daanaka mel na ni boo ko xoolee rek da ngay gis ni li muy euh, forbët barewul kon loolu moo lay wan ne charge bi ni mu euh, tollu ci moom loo loolay waral xëy na mu doon koo xam ni du am benn jot waaye nag doon na koo xam ni itam seedeel nañ ko ni ubbi na ay buntam tëjalul kenn buntam képp ku ñëw di ko seet dina la yaatal nga ñëw ngeen saafonte bu dee aajo joo soxla la mu fajal la ko bu dee looy laaj la mu wax la ko bu dee ay doléance la yoo xam ne da nga koy wax itam euh, mu mu mu indil la ci ay réponse gis ngeen ba récemment liggéey bu rëy bi nga xam ni sëriñ bi mi ngi ko doon jël di ko sant euh, xalif général des Baye Fall euh, sëriñ euh, Amdi Modou Mbend Fall doon ko sant ay liggéey yoo xam ne mi ngi doon am foofu ca Touba Mbacké sëriñ bas Abdou Khader moom moo ko taxawee liggéey bi kon ba fi nga xam ni foofu la bëgg sëriñ bi foofu la sëriñ bi bëgg mu yegg fa kon nag sëriñ bas Abdou Khader mi ngi noonu moo di. doomi Serigne Abdou Khader Mbacke di sëtub Serigne Touba boo xam ni mi ngi gane àddina ci 1976 waajuram wu jigéen dudd Soxna Daba Bousso mu doon itam koo xam ni jaar-jaaram riche na lool. am na nag ay euh, nemmeeku yu bari yoo xam ne dina koy faral def ci bitim réew di dem di xool taalibe yi. seenu nekkin di xool itam ni nga xam ni noonu noonu la nekkee ci euh, bitim réew gën leen a renforcer gën leen a dëgëral ngir ñu gën a bëgg Serigne Touba maamam waaye it gën leen a soññ ci li nga xam ne moom moo di euh, diine islaam jikko yu rafet yooyu nag. Euh, seriñ Touba moom moo ko ñaanoon boromam ni ko na ko may ay sët yoo xam ni dañuy jub ba pare di sax ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi comme moom ni mu ko doon defee waaye nag. am na loo xam ne itam ñoom fierté fierté la fierté en soi mooy ni Serigne Touba doon dundee ndax lépp loo xam ne rek comme li ma la ko junjee sànq ni mu jaxasoo ak niti diine yi ni mu jaxasoo ak niti diine yi noonu la jaxasoo niti àddina yi te amul lenn loo xam ni dina dem di ko comaayati ci ñoom wala mu leen koy sàkku ci ñoom ndax seen maam cheikhul xadim moo waxoon ni na waytu an la amud yaddi ila nasara abidil maa i wa waaw kon nag ñoom lu ñu am rek doyloo nañu ko euh, ndax Serigne tubaa fàggul na leen lépp Malick kon loolu la ñu doon indi tey ci Cheikh Bachir euh, abdul Khader Mbacké mu di porte parole bu xalif général de Mourides yor kàdduk yoonu Mouride yëpp ñu ne woon kon Ndindy Actu dina ko jagleel benn page spéciale def. benn portrait ci nga xam moo di Cheikh Bachir Abdou Khader Mbacké di ngeen gis ci image yi incha allah ay jaar-jaaram yu bari yoo xam ni jot na ko def ci yoonu murit ñu koy sant bu baax a baax di ko ñaanal mu gën fee yàgg te ànd ak wér di ñaan suñu borom mu yàggal fi Cheikh Mountakha Mbacké euh, Bachir ñu sant leen bu baax kon gërëm leen di leen jox rendez-vous beneen yoon ci Ndindy Actu TV. jërë ngeen jëf